guddi ñu toll maa moom may baax ni ko xale yi di waxee. waaw dañ ñoo may xanaa mayoo ñu. boo solee col gu bon foo romb ñu naan kii ana ndeyam ana bàyyam loolu da ngeen cee war a bàyyi xel. non moom dëgg la. koor gi ak lu jëm ci wàllu diine yi. waaw su ma paree ci yéen. yow sa xam-xam weneen teew ma ko. jàngale diine du yomb. bu ma la ko doon nital kon ñibbi nga bu yàgg. Euh, Sali. Ah, waaw bëgg na waxtaan. Ah. damaa amee gan nag ña ngi si yoon wi la ñëw. waaw <laughs> waaw xanaa fàtte ñu si koor gi. waaw léegi moom loo bi ma a teg nii la la si am. si koor la nekk yàq koor gi yow tam nag. Hmm. Ah, waaw waaw waaw. baax na baal ma. gune yaa ngi ñëw ñu ngi si yoon wi. ay gune. waaw mag njaboot. fa jëm. fii lay jëm si kër gi. kër gi. dinañ fi am semaine. <laughs> semaine. waaw. loolu mën na nekk de. waaw. nijaay yow tam xanaa yërëmoo ma yow tam. si la ma laa yërëmee. ah xam ne kër gi dara matu fi yow man bu maa ngi daw lañ le maa yow lañ lekk nga bëgg a tee jëlati ay xale di indi si kër gi. Sali Mbay. xale yi nga indi ñaati kilo yi mburu la nañuy. waaw ñi la jënd fukki saaku yu mburu di ka joxe si dëkk bi ñoo ko nag. ñooñu day ko am yow amoo ka yàlla am na ko te dina ma ko jox incha allah. yaa nga ne yàlla am na ko. am na ko kay. waaw lii yàlla am koy mooy li mu may wërsëgale man mii xam nga yow sa wërsëg bariwul yow soo utee ma uti man maa lay ëppale eh, si xoolal Saly Mbaye yeggunu foogu de ah ah kay du ah ah ngi ni ma utal la eh, kees gi la jaay tàndarma la jaay korne ba ah meew toppa tànga wi bu ñëwee nu lekk nga bëggatee indi te ñeneen xanaa kay mooy gën a la daw si naaj wa tànga wi boo la kaa sama ko mag njaboot la yeen te si man la ya bokk dinañ ñëw waruñu fee ñëw na duñu fi ñëw ah ne seen kër bàyyi boo leen soxlaa kay yow eh, loogu saw yoon new ma doom a ngi si ma suti ngi si te ma sët boobu maa jur ndeyam. lekk gee naan gi nag. yàllaa ngi fi. léegi yàllaa ngi fi yow da nga ko yor fi mu ne nii yow yaa ngi si retiré te yoroo dara. waaye ma ne Salim Mbaye bal ma reex yi wax waay bal ma yëngal waay. ah dama lay reex wax xanaa kon yow bëggoo ma. bëgguma ci yow kay noboo ma rek kay moo gën nga bëgg kaa jaaree. xale yi lan moo fi indi noboo ma la. lan moo ah, fi indi. yaa wax ji yaa fi wax kat noboo ni nga wax ni kay mooy noboo ma xale yi dinañ tax yow tamit nga nekk di ma xas kër gi xam nga kër gi yow léegi la ma teg ma loxo maan si weeru koor la nu nekk bëgg fi yëkkati na wan bañ a ori nag yow tam nag dama teg yow fi yëkkati loo si doon léegi nag xam nga mu laa yëgal dina yi ñëw bala neexee bala na xaree dinañuy ñëw bala neexee nag bay ñëwee u génn man ma génn waaw maa bañ génnuma fan ma tus sali bi maa daw la liggéey ba jëm retraite diggante boobu la mu deful si aw amul la ma deful si say mbokk amul tey li Rama fay waaw kay boobu na nga waroon a indi nag baa nga amee boobu nga war a indi sa say set ñu ñëw fii waaye doo bàyyee ba fi mu ne nii retraité nga yoroo dara bëgg indi gunay fi di ko xëpp si ma kaw li weer sa bopp. ba ne u defar néeg. néeg bi defar woon defar dara la ma defaroon. ah waaw kon ñaara mën a am. mooy lan daxaala man a noppi tëj saw làmmañ. tëjuma eh, incha allah gunay dinañ dugg si kër gi. dinañ fi dugg. kon u génn. du ma maa bañ. ah bañ na kër gi. eh xoolal doy na. ah doy na. comme que aw sa sa raxas dala fëqi ndab baax na laa def baax na waaye gune yi dinañ dugg si kër gune yi duñu fi dugg nag nga pare dama si loolu taxal maa sonn si ay wax waaw baax na ba ñu ñëwee kon ña gàddu kees gi dem jaayi ma jox ak gune yi ñu dem jaayi ah nu ñuy def danga am kër gi lu ñu lekk waaw ak ngir lan ñeen fukk laa fi jaay léegi nii te léegi ndogu jot yow awlom xel sax lée amul xel amul ba balew nag u defar néeg yi loo mën a yóbbu ba gis xaalisu jàkka ji nga war ko fee mën a ba a ah fii laa ko ba léegi dugg ci biir génn ñu ne ñu mu ne ma menteñ ne ma meles ah fii kenn mënu fee dund ah kenn mënu fee dund da nga am xaalisu jàkka ji la ñuy yóbbu waxatuma laa xaalisu bitig yi kenkaayir yi ah ah lii kenn da koo mën a wax te man fii dama fee gisut kenn kenn laa fi gisut ah ah man dama loo xamante ni moom lañ yaakaar defal néegu yàlla bi man a ko attanee yóbbu ah man danga ma jaaxal trop. kenn ah, yóbbuwu ko nag julli daa amatut du kenn du dul waa koñ bi ah. ñu dëkk fii ci ginnaaw maa toog fee gis leen ñuy lali xaalis bi morso bu weex bi nga laloon fii morso weex taal la kay ñoo ko lali ah boo ma toppee la ba fa ñu dëkk maa leen di rootal di leen ko lali a ah, gis ko wóor na la li ngay wax leer na la weeru koor gii na wax lu ma wóor a waaw loolu de ma ci jaaxal xanaa lu a xaalisu yàlla wax dëgg yàlla wax dëgg de yóbbu. waaw wax dëgg yàlla. maa leen gis. Ah. boo ma toppee ma ni la kii. doxal du dem nan dem. doxal la dem leen lu ma ci xaaram doxal du dem ah. Ah, nii moom neex na ma ah waru leen fi la daan bat tool yi da daa dox ak mbokk ma sa baay kon du ma demee ba toog yéen war nañ mën a ñëw xanaa weer leen fee def bokk waaw papa xam naa ne nag weer day bari hmm? dañ ñëwoon xaaral ñu ñëw siyaat leen ci koor gi rek def semaine mandat xale yi. donc mm-hmm, jot a am <laughs> xam nga euh, sax yàggul mais dama ne xaaral ma ñëw dafa tu ba ñëw ànd xale yi. day bëri waa xam jot amul papa ak ñaw jàmbur yi affaire yooyu mënuñ toog fii un mois dafay bëri torop loolu moo tax. dëgg la waaw ah, ah, toog leen weer rek. xale nga yow ñi amuñu jot a toog déggoo liñ la nga bëgg xam nga yéen a korite ak incha allah waaw mami ñii nag laa am. ma magal leen du ma bëgg a in jàppante leen in la saafonte la seetante. dégg naa si. Ah, papa mun moom ñii dama leen a bëgg moom munuma leen bàyyi bëgguma sax. kon kontaan na ma si loolu. aw nag déggoo na ma sa coow sa bàyyi. ab gune laal doom laal. ba coow li jib. moom dañu am xadar. waaye xol yi dara nekkul si. góor gi tàng rek. waaye yàlla def na ci ndox mu sedd. wuy jur day kaa ormal ah la mu a tàng moom nekk waaye dama bëgg ula muñ dafa tàng rek papa yoo xam ne addina demee noobu sa tàng waaye nag sa yaa lépp lépp rek la ah, naa ci appartement ba ma nekkoon maa ngi ci kër ga léegi ah. naa samay bagage yëpp loolu neex na waaw waaw moo fa jaar njaga man njaga mel sa njaga njaga men eh. waaw dëgg xaw ma kañ laa def erreur xaw ma kañ laa def erreur moom mais keroog ma na lu baax. ba defee fukkee bon de benn ba baax laa def. <laughs> xaw ma moom mais keroog def lu baax. Ah. wax dëgg yàlla jubóole ma ak lool wax dëgg yàlla kontaan na ku ne baa nekk. waaw kii du ndew. waaye ndew bàyyi naa ma de. mbaa bàyyiwuloo waa dëkk ba. déedéet barki démb rek si ki ipagay moo yor horaire bi mhm. maa ngi jënd mburu mu baree bari di ko yóbbante pour ñu baale ma ko suñu waa dëgg la kay bàyyu ma leen man kay mhm. man kay rëccu ma benn yoon loo ma doon yóbboo foofu ndaxte mhm. bis bu yàlla sakk dañuy togg ay soos yu neex a neex ay ay ga kaa ñori parce que demee ba bëgg a tëdd nii. dañuy ut pot bu sedd guy def ci soow. ni ma deew naanam. damay jekki sax bëgg a ut almet dem teg ko si gaz bi tàngal. looy tàng tàngal soow mi. am soow mi nga tàngalee ndew al. kon ñun de ndew gis ni kër gi. ndew kay ndew xam naa ni koor gi day metti. jënd naa saako ceeb. donc saa yu ne ak diw li nekk ravitaillement yëpp. lii nag ma bëggoon ko teg seen loxo rek. koor gi dafa metti koor gi daa metti waaye papa man ko xaar laal moo la borom ah, kër gi kon moo la borom kër gi téye rek bari na di rek yal na la yàlla yokk ah, waaye amiin amiin ay saw ñëw dama naa leen ay saw